jërë ngeen jëf yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di char bu baax di ci dellowaat rek kenn ku nekk uh, sa wàccuwaay amaat mbégte comme ni ma koy def saa su nekk fas yéene dal kilifa yi ñu fas yéene di waxtaan saa su nekk ci xam-xam ndax uh, yaakaar naa jëmm ji ngeen di gis nii doonat koo xam ne dama koy présenté ci biir milieu médiatique bi ndax xam nañ ko bu baax saa bu fi jaaree rek ak waxtaan wi nga xam ne dina ko wér ci xam-xam révélation am solo yi nga xam ne mu ngi koy def gis ko ci biir réew mi dinañ ko waxtaanee kooku mooy Serigne Mourtala dinañ waxtaan ci paj ñaan waaye duñ fa jógee dinañ waxtaan ndax am loo xam ne gis na ko ci réew mi lu doy waar waaye rawatina ci kujje langue politique bi ñi nga xam ne ngànk dañ ko ci président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko waaye làmb ji dox ci diggante Balla Gaye de Tapha dina ci wax ndax am na loo xam ne gis na ko ci rawati nag li combat bi des nag su ngeen bëggee xam na fay mujjee am na lu garaaw loo xam ne gis na ko ci sëñ Mourtada damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi bismillah aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahimi waxablanaa bi xaqi ba il basmala asiini wal miim sural kamala waxablanaa bi baaxi fi daareeni maa yet faxoon xaareeni wa naareeni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe yi maa ngi siyaare ñëpp <laughs> uh, tey baalu xaq ñëpp tey baalu xaq ñëpp tey nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi ma seetaan <laughs> suñu seex maa ngi lay nuyu yàgg suñu Mouhamed mi ngi àndal. waaye bala nga maa laaj leen ma jàllaleel dara rek. Mhm. nga soog a ñëw si man benn question. Mhm. bisimilah. Gaston Mbengue. Mhm. fi ay yoon yoon di wax si moom a rey ko. doomam taawam bi. na jug si boppam. bala nga ma laaj si lenn. message bi dama koy jàll bu noppi. ay yoon yoon. ma génn di wax si moom. dañ kaa sànni ko ot. te suuf la. Ah. rey nañ ko nag. taawam bi. na jug si boppam. ndax comme rey nañ ko. Mhm. si moom la jëm si. beneen bi si tege mooy. Mhm. ancien président bi ma gis. waaw na fay ay borom ta xam ne day faatu. dégguma li nga wax de. ma ne. Ah. ancien président bi ma gis laax. waaw na fay ay borom. Ah. te xam ne day faatu. waxoo jàmm de. te du yàgg dara. ancien président kat ndax euh, instant yi euh, ci ñi fi nekk di dund euh, Abdou Diouf ancien président la. Abdoulaye Wade président la danaa si ñëw ak yow. danaa si ñëw ak yow. wax la turam ba mhm. ci ñëw ak yow. waaw wax la ak santam. Ah. ancien président bi wàcc. Uh-huh. na fay ay borom te xam ne day faatu. tarka bisimilah. jërëjëf jërëjëf kon am na solo. acca kon euh, laata ñuy génn foofu ndax wax nga ko sànq daa nga ko wax ci Gaston Mbengue mais taw Gaston yooyu euh, ban taw Gaston ndax am na doom doom de xam ne maa xamul kan ci nga ciy wax kanci la. doom jim jim njëkk am. waaw doom. ah kan la. dama ne. waaw nit ñi dofuñu de te ñi may déglu xam nañu baax la may wax. waaw. <laughs> jërëjëf kon acca loolu lépp dinañ ci yaatal ci kanam kon topp leen ñu xam ne ku gis fi ma nga xam ne tàmbalee na fa xam ngeen ne kon émission bi nar naa neex to dina am solo cheikh bi acca dañu ñëw ci seet bu yéeme bi nga xam ne suñu borom dala koo dénk nga ci jëflanteeg saa su nekk jaami yàlla ñu ci gis seen bopp waaw alhamdulilah suñu seex seet moom wax dëgg fi yàlla bu ñu demee ba ne ma yaag diw lañ koy méngale ma bàyyi ñaan yàlla man ma dem defe ji wala ma defe leneen seet sa photo sa photo loxo bii daanaa na photo ma ko waaw sa tur waajuru góor sa mhm. tur waajuru jigéen mhm. ma wax la boo wax la bis bi ngay faatu allahu akbar wax la bu dee sa yaay amul si farata yàlla sunu Muhammad dama la koy wax mhm. su dee da nga maa woo heure bi nga ma woo boo si ñaalu woon mooy sa borom dama la koy wax sa ngénte bu dee ceebu kàccax sax nga tooga dama la koy wax <sighs> tarkal la waaw dëgg fi yàlla seet dama si amul morom waaye li wax sax su def suñu borom moo may nattu may xool ay benn benn benn rek di di leen ko defal. waaw waaye bu dee sax doomi njaaloo nga dama la wax. Mhm. wallaahi laxasimi. tarkal la mhm. ku bëgg loo xam day nëbbu sew. waaw bëggoo mu feeñ doo ma seetloo. waaw ndax boo ma seetloo lu nekk la koy wax. tarkal la sa yaay ni mu mhm. lu mën a doon dama la koy ma seetloo. si leen jërëjëf aca ñëw jàll yaatal ñëw ci wàllum boole suñ ko waxee si ni xel dina jëm ci noob doonut lu yomb nag waaye yow mi am na loo xam ne yaa ngi ci jëflanteeg ñi nga xam ne am nañ ci yow yaakaar waaw noob moom li may wax chaque jour rek mhm. man liggéey xam-xam bi xam-xam bu ñuul laa liggéey mhm. damaa bañ ba dem dikk bu naan bene waaw fa xam-xam bu ñuul di ko liggéey waaw damay wax ne nopp mhm. man ku ma koy defal ku nekk waaw da ngay dikk toog sama saal bii man laaj la tur xari bi la ma ne la jox ma li nga may jox nga teg ko su taabal ji mhm. ma def li may def waaw mu woo la bala nga fay jóge du am waxtu mu woo la na la sama diggante ba nga doon wax ma na yow baax na mhm. su dee góor la noonu bu dee jigéen noonu la mhm. du ma fi nekk naa la demal bërëb sàngam wala demal ba bis nàngam déedéet may toog ma noobal la nga jóg dem si yoon barkalla waaw noo moom amu si morom jërëjëf bisimilah acca ñëwal ma ci wàllum dëddale donte nag xaw ma ban façon dëddale moo baax waa dëddale moom dama si yor secret yu bëri te tamit. Mhm. du ma ko defal n'importe qui. waaw dafa am ñu ma suñu di nattu ma dina ko defal rek. Mhm. ndax dëddale. Euh, du ñëpp laa koy defal. waaw ndax na ñoo xam ne man nga daa boole suñu borom mën naa boole ñaari nit. ñu mhm. gis yow fay la damaa bëgg nga tàqale leen. waaw kon dafa am ñu ma koy defal. ñi koy defal mooy koo xam ne waajur dafa am doom jigéen. waaw ku góor di ko bëgg. ñu def ay pexe ba takkante. sëy boobu neexu ko. <laughs> waaw ñooñu moom dama si xar sama tànk tubay dindi ko. tarkal la waaye du ñëpp laa koy defal daal man naa ko nag waaw te lu wér laa koy liggéeyee wallaay ndeysaan ñi may diglu xam ne ñi wax ñi ma yàgg jëflanteel waaw waaw waaye du n'importe qui laa koy defal ñi may ñi may diglu na xam ne li may wax baax baax lu leer nga wax bisimilah acca gannaaw dëddale dinañ waxtaan ci impuissance sexuelle mu di néew kàttan sa garab nag xam naa ñàkk koo mos wóorut ndax euh, mu ngi def résultat yoo am solo ñëwal ma ci wàllum néew kàttan bi waaw néew néew kàttan moom jafe na jafewut sunguf si la rek waaw yëkkatil gaa yëpp sunguf si la rek mhm, mu ngoog de waaw sunguf si bu yàlla dogalee ma la joxee mhm. euh, da ngay tatkal la waaw teg sa loxo mëq na jàlle ko ak ndox waaw trois heures de temps da nga koy sëy loolu ñaata yoon laa ko fi wax dañu ma ko jox wallaahi la xasimi saa yu jeexee ñu waat ma mhm. fii ba France Matar Diop Alfatou Ndiaye waaw Modou Ndiaye ma nekk France ñëpp xam ñu ngi may déglu xam ne li may wax mhm. sungu si dama koy teg e mhm. ba jamono gi ñu toll ma xëy yow waaw boo xam ne waaw Mourtala rek ngay dégg foofu noonu si si si boobu ndax sunguf si ma fay joxe du am doole gi ma fa am doole waaw waaw man nag dama dul baaxoo def dara di génn di ko wax mhm. waaw waaye sunguf si ma joxe ñu bëri xam nañ ko ba ci Sénégal gi bëri na ñoo xam ne chaque jour dañ ma koy laaj daal waaw waaw mhm. waaye suñu borom da dogal dafa jafee am te jot gi moomu dul may ma di ko wëri mhm. waaye saa yu ma ko amee rek dinaa génne am naa ko mhm. su ma ko amul nag damay génne am ma ko su ngu fi caaxaan moo tax tarkal la waaw mu ngoog acca ñëwal ñi nga xam ne mu ngi leen di dugg saa su nekk lu bëri mu leen koy xañ faru rab waaw faru rab moom dafa doon loo xam ne añ saa nga gis jigéen gu mel naka suñu borom bindee waaw waaye du mën a fexe ba am jëkkër walaay ndeysaan ñooñu nag bëri na sax de Hmm. bokk nañ ci li tax man ma génn dem gëstu ji xam-xam boobu waaw ndax wallaahi laxas bi di nga gis jigéen ñoo xam ne waaw dinañ daj ci góor lu ne waaw waaye suñu borom du dogal ñoom ñaar ñu sëy ah. loolu nag foo gisee lu si ëpp farrab la doon uh-huh. waaw farrab moom da ngay dikk toog sama saal bi waaw ma jox la saab bi ma lay sangoo na la dugal sama saal bi nga sangoo ko uh-huh. tarkal la jox la téere bi ma lay jox na la takk ko uh-huh. wallaahi laxas yi di nga ci teg weer te nit gisu la bëgg la tarkal la parce loolu am na borom Tuubaa rek laa gëm te du ma si waatee caaxaan mhm. waaw far rab mhm. ak lii di seet ak nopp moom dama si amul morom dëgg-dëgg ñi may diglu xam nañ li may wax waaw bisimilah kon jàll sa leen acca mhm. ñëwal ma ci bayre bu sax sàpp bi nga xam ne yaa ngi koy def xam naa bëgg bayre rek bu am solo te am njëriñ ñëwal ci sëriñ Mourtala ñëwal ma ci bayre boobu waaw alhamdulilah suñu seex waaw bayra dafa doon loo xam ne jafe naa wut jafewut a wut walaay ndeysaan waaw waaye suñu borom dafa dogal barki démb. Mhm. dafa am kilifa gu mag gu ma woo. waaw ci tiijaan ñi la nag. Mhm. am na loo xam ne yaakaar naa bu ma tuddoon turam sax. Mhm. du jomm nga xam ko. leer. mu ne ma mu ne ma damaa rafetlu sa kàddu yi ngay wax si internet bi. te gone nga. waaye gis naa ne ba nga dalee wax ba tey bëri na loo fi wax ma teg ci bët. waaw muy gason bi. ak làmb ji ak yeneen ak yeneen. waaw ma ne ko nag loolu du dara. mbiri suñu borom la. walaay ndeysaan suñu borom mooy xool ab jaam moom dara. mu yëkkati loo xam ne. waaw nee na suñu Babacar si moo ko joxoon. ci chèque boo xam ne si bayra lay lay dox. <laughs> Mhm. barke alquranil karim mi ngi sama loxo bii. macha allah wallaahi alazim yi. loolu taw mu waati caaxaan. tark allah. barki démb laa fa dem. Mhm. mu jox ma ko. waaw secret bayra lay dox. waaw. dama mhm. laa yéene baax moo tax ma jox la ko. waaye jur naa ay doom. yoo xam ne sa waxuma leen ko. est kon nag. loolu. loolu dama koy naboo da xam tama di ko naboo nit ki xool la ba gis la bëgg la boppam di ko doon kilifa gu mag jox la sekkar boobu te bëri na ñu ko bëgg si man jamono gi ma ko jox moo tax bisimilah jërëjëf sëñ Mourtala kon am na solo ate dañuy yaatal ba ku ko bëggut mu dee alal ju gaaw waaye bu mu ànd ak benn sacrifice <laughs> waaw loolu moom waaw képp ku bëgg am alal <laughs> loolu moom suñu borom li ma see defal tawfeex joo xam ne. waaw man mënu ma la kaa misaal. Mm-hmm. ndax bene gii gars yi di tudd. Mm-hmm. wallaahi lan si bëri na ñoo xam teguñu fi seen teguñu fi seen tànk ba. seen tànk bi teguñu ko fi. ndeysaan barki Cheikhul Xadimi. waaw te damaa dem ba bane. waaw gës wàllum xam-xam bu ñuul. nga mm-hmm. liggéey. portefeuille musique. lu am la. ndeysaan. tey. xam nga àdduna moo doon loo xam ne. waaw dafa bëri ñoo xam ne. dañu bëgg si bës. di wax. man mhm. ñaari ñetti nit xuma ñeent nit taf nañ ma di wax si mhm. portefeuille Masik amut xam nga lu ma leen wax mhm. da ngeen di jël oto tegtal leen fu ma nekk ngeen ñëw man laaj leen li ma leen jox ngeen génne ko teg sa taabal ji waaw su ma la ko defalee gisoo leen ngeen yóbbu ma si yoon waaw loolu xanaa loolu ñoom seen xel war naa mën a dal portefeuille Masik ku ne amul ku nekk damaa jàpp ne da ngaa doxut ndeysaan ndax xamal tax ma tan man ne da ngaa jàpp ne da ngaa doxut damaa dem ba bene waaw fekk fa benn waay yoo xam ne bëri na ñaankat yi ñi hmm. xam dara laa wax waxuma ñi xamul dara ñi xam dara ñëpp xam nañ kooku ndax day ñaanal ay ministère hmm. bëri na ministère yu moon yoo xam ne moo leen ñaanal kon kooku du gone hmm. ba si Macky Sall mi damay tudd tur ñëw na bene dégg naa moom moo koy ñaanal te damaa wan ay firnde tax ma gëm ko maa dem liggéeyal ko juróom-ñeenti nawet juróom-ñeenti nawet bis sàngam da fi ñëwaat wallaay sàngam boobu bu ñu ñëwee suba la ñuy um koor laa fa dem macha allah bu ñu ñëwee la mu jox ma lii. waaw ñu ne loolu ñu ne lii amut. <sighs> tarkal la waaye nag. boo nekkee si yoon faaw nga am ay faqastal waaye da ngay bañ a lijjanti kenn waaw du man man du ma tontaante da bëri ñu lay ñooy tont ñoo xam ne bés dañu bëgg si yow waaw kon nag du ma leen ko may waaye portefeuille bi waaw ma waat ko si darajey yàlla waaw billaahi la si laa ilaha illa ku kum ko jaral waaw kum ko jaral ku ne soo dikkee si man ma defal la ko nga am ko macha allah barke Cheikhul fa du sacrifice du dara alal ju leew lay doon yaa moom kon mu kook ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne bu amoon. defal ko boppam. man damaa namu dara. Mhm. soxla ma xaalis. Mhm. man mën naa laa wan loo xam ne parfum bi ma jënd démb. Mhm. xam nga ñaata laa ko jëndee. waaw benn cuuraay boo xam ne da ngay lay jar. dee bu dee gëmuñu ma taal émission bi léegi wan leen. walaay ndeysaan leer na nañ. kon nañ daay waxantu gi nañ jàll si leen. jërëjëf. aja kon ñu ñëw ci wàll. te nag taxawal. taxawal day ànd ak saabu. Ah, saabu bi lay ànd ak saabu boo xam ne da nga koy sangoo. Ah. ànd ak ah. ab jaaro tarkal la waaw mu goog mm. kon am na solo aja kon sëñ Mourtada dañuy ñëw ci ñi nga xam ne dañoo bëgg euh, am lii di yu am solo ndax euh, tukki moom laaj na lool nit ñi nag yaakaar ñu ñeen lu ñu mel ni yéen yi nga xam ne di ñaan ci wàllum papier waaw wàllum papier moom li may mm-hmm. dafa jafewut waaw sëriñ su ndaw si lay waxal mm-hmm. nañ bàyyi nit am tolof tolof ñëw si ñoom ñu di ko jafeel walaay ndeysaan nañ jàppale nit ñi si ngir jëm yàlla mm-hmm. am na solo de nañ jàppale nit ñi xam-xam bi ba koy yàlla di wàcc si jàmm ñi bëggul woon ñu ñu si soor fay nag mun doonul lu mun a ñàkk waaw ne nekkee woyo falal te di leen jàppale te bàyyi naxaate gi mhm. sëriñ si nañ bàyyi naxaate gi damay génn di ko wax chaque jour nañ bàyyi mhm. naxaate gi lu wër mhm. wàllum tukki li may wax chaque jour man force ma kenn mu ñëw si man waaw neexulu ma kenn mu ñëw si man waaye ku ñëw si man ku nekk di nga am li nga bëgg waaw parce que Cheikhul Khadim lu wër ku bëgg a jóge fii dem Amérique amoo visa soo dikkee ma defal la nga am ko si force maa am nga am ko si force te nag beneen bi si tege mooy nekk réew ma te bëgg a te wala ñu bëgg fa kayit yoo xam ne dañ kaa bëgg liggéey te amuñ ko. wala ndeysaan. barke alquraan karim ku ma si woo ma defal la nga am si ay kayit. Mhm. ku ma si woo ma defal la nga am ay kayit. yoo toogee foofu di fa liggéey ba boo bëggee kayit ma defal la kayit yoo xam ne pour ñëw Sénégal la. tarkal la jëfewut. lu ma mën la te di ko liggéey. tarkal la te nag buñ dikkee laaj ma foo ko teg. ma génne leen ay preuve. Mhm. ndax Sénégal yi preuve la bëgg. waaw ma la génne ay preuve naa leen fii ko teg macha allah waaw ñu xam ko loolu de leer na waaw kon jàll si leen bisimilah aca ñëwal ma ci ñi nga xam ne dañuy xëccoo lu ci mel ni gagné lu mel ni marché ak i terrain ñëwal ba foofu waaw loolu moom suñu borom dafa dogal ndomba li ngay gis waaw bu ma la ko joxee nga takku ko waaw koo demal si loolu ku ne mhm. day perte tarkal la ku mën a doon nag laa wax mhm. wàllum marché ay suuf terrain mhm. yu demee bu ma ko joxee nga takku ko waaw ak ku mën a doon boo demee si moom nag day ñàkk moom waaw su moom day ñàkk waaw yow moom yaay am moom waaw waaw ndax li may joxe dama kaa xam moo tax tarkal la ku bëgg ku nekk boo ma wooyee incha allah dina si jëflante. tarkal la waaw. ayca ñëwal ma cee murid sonal la ñu bëri fi mu ne nii feebar bu doy waar la nag. waaw ndeysaan feebar boobu moom man damaa dem ba yëram jaam ñi. Mhm. la xasim surtout ma safoor si ak tailleur yi. damaa dem ba ne damay génn sax. Mhm. jàpp benn bis boo xam ne. waaw damay def benn interview. Mhm. woo leen jàppale leen ngir jëm yàlla. bañ leen laaj dara. waaw waaw. gis nga pot bii bu ma la ko joxee. waaw ngoog de. pot bii bu ma la ko joxee. waaw ma wax la ni ma la ko waxee nga defee ko noonu. fukki fan ak juróom laa la may sa émirate bu dañut waaw yàlla bu ma gisanteeg Serigne Touba ëllëg yomal xëyam est-ce que mhm. wallaahi laxasi man dama bëgg borom Touba ba du ma si waatee caaxaan mhm. waaw lay dox mhm. doxu si dara tut bari bëri njëriñ tarkal la neen nga gisee nii waaw képp kuñ si jëflante ku nekk dinaa la wax ni koy defee waaw te billaahi ku ko jël ku nekk doo ko rëccu tarkal la dafa jafe am nag. Mhm. mu ta am. waaw ku ko bëgg ku nekk boo wooyee. Mhm. dinañ si jëflante baax baax. macha allah incha allah rabbi. jërëjëf incha allah. acca ñëwal ma ci ku ñu sànni kort. boobu moom. Mhm. dama ne woon sax tey si bàyyee wax. ndax affaire Gaston Mbengue. waaw damaa metti lool. damaa génn ay yoon yoon. nañ ko faj nañ ko faj. waaw dañ kaa sànni kort. coow suuf la. nañ ko faj nañ ko faj ba mu faatu. tey day na wax dëgg. xamul la xam. kuy. ku koy nax. waaw wala kuy lekk xaalisam. Mhm. yooyu noonu. waaw wala ñu ne kii wutuñ kaa woo jafe na maanaam euh, jafelut. Mhm. saa yu ñu ko woo mu wuy rek ñu ne kooku yomb na. waaw xam-xam lan la doon si loolu. Mhm. ay woo nit ki ñu bañ laa jël. waaw sama téléphone bii ban njëriñ la ma amal nit di ma ma bañ laa jël. appelé daw suuf ban njëriñ la ma amal. kon balaa càkke jur woon ngay génn si télé yi nit ñi di la woo. waaw gasoo meeg ñaata yoon laa fi génn di wax si moom. bari na. te korte doon loo xam ne dafa jafee dindi waaye man si 24 heures laa koy dindi tarkalla loolu am na solo da dikk toog sama saal bi waaw man laaj la li ma lay laaj ko jox ma dindi ko cey laa ilaha illallah waaw illaahi la si laa ilaha illa huwa mhm. gasoo mee ngi nit ñi dañ kaa seetaan waaw dañ kaa seetaan ba faatu mhm. te tooñ nañ ko nag de laa ilaha ay mbokkam tooñ nañ ko ndax ñaata yoon laa génn wax nañ in ma ko mhm. ñu doodool ba nag ëllëg yoomal xiyam dina ko dina ko diggaale ak ñoom dinañ ko lijjanti de dinañ ko lijjanti mhm. ndax ñaati yoon laa wax nañ dëkk fii toog sama saal ma faj ko mhm. di dégg di ko négligé di ko négligé ba mu faatu ay doomam nag laay waxal nañ génn <sighs> te faju xaw ma nan gas xaw ma nan meng waaw xaw damay fàtte tur wi am na am na doomam bu ñuy wax makaan de wala makkaan la wala du kooku dama ne ki si hmm. gën a doon mag hmm. taawam bi man xam naa ki muy wax baax waaw ndax barki démb rek jokkoo nañ téléphone <sighs> waaye laajuma ko noo tudd ak yooyu yëpp man laajuma ko si dara. kon mu ko ndax kon day mel ni bës ngay wut. Mm. moom laa moom na jóg si boppam. waaw ah, ok kon leer na. président bi may wax nag. waaw nit ñi ñi ngi koy fawee rek. waaw bi kat la. président bi. waaw seex. waaw barki seexul xadim yi nit ñi ngi koy fawee rek may wax. waaw ku ne di am luy wax di lii. xam nga da fiy génn émission beeg jàll. waaw na gis naa fi ñetti ministres yoo xam ne at mi du seen at. Mm-hmm. ñu teg si ay fan. waaw Farba Ngom dee la jur gu bëri. waaw yëg nga loolu. Mm-hmm. walaay ndeysaan Hmm. base moom ñett la ñett wuy ma waaw dama xamut ma hmm. ma jàppee gone goo xam ne dafay génn di wax li ko neex ne ñu nax seen bopp tarkal la mu gokk gis nga adduna waaw faw nit ñi di xàmmee dax naqkat yi waaw ak ñi jaamu yàlla hmm. ak dóorkat yi ak ñu am ijaaba loolu am solo la man damaa yoru mbirum yàlla laa yor yor mooy mbirum gone tarkal la barki Seexul Xadim acca lan nga gis ci président Bassirou Diomaye Faye ak Sonko ñaari ñooñu li ma gis si ñoom waaw dama koy wax ndax jamono ji ñu toll ñooñu moom ni ma jëlee si ñoom engagement. waaw mosuma kaa jël benn engagement si benn sëriñ. ndax. ñooñu seen wax boo koy dégg da nga xam ne ñi dañoo nara a defar réew mi. man jamono gi ñu toll ñaar ñooñu dama lay wax gudd dara xamal si ñan laay wax. waaw nga xam dañoo taxaw pour bëgg leen yàqal. koroog dafa am koo ma fekk Jurbel. dimanche bi jàll. di am liggéey bu may sant. man ma ko liggéey boobu de mën naa ko. waaye duma ko def. Mhm. na ko yow nag bala ngaa génn sama kër gi waaw dam naa la duma si saaxir duma la si baatin barke Seexul mhm. Xadim sama kurus gi mhm. ma ne ko dinaa la si duma ba xam ne yow sëriñ am na moom nag di leen di leen di leen di leen liggéey pour ma faat leen ñu jóge fi xam naa leen du ma tudd tur teg naa ko gàllankoor kooku teg naa ko gàllankoor boo xam ne Euh, su gisatee doomu jàmbur ju dox si mbedd sax du waxateeg moom sàkkantuma naan da ngay jéem si moom lu bon wala dara mu ngoog ma ci ñaari gone yi gone bawol beeg euh, géejawaay mën naa ne Balla ak Tapha Tine bi noo ko gisee ah combat boobu de maa si wax loo xam ne benn sëriñ du ko si wax waaw bismillah muy lan maa lay wax kii daan waaw kan la ak niñ koy daanee hmm. ak suuru làmb lan mooy am si biir stade mën nga ma koo révéler tey wax ma ko fii tey siñ seex waaw combat Balla Gaye Tapha waaw maa lay wax kii daan. waaw ak stade ba la fay xew. Uh-huh. ba xam dóor mu daan dina fa am wala du fa am. bisimilah sëñ Moutala yow la ñëpp di déglu. fii barki Seexul Xadiim mi. waaw dama ne. Uh-huh. chaque jour li may wax. Uh-huh. ji nga lii may def. man ko digg liggéey. sëriñ bu ko man ku ne da ngay génn def lii may def. waaw ko mën na def. waaw ñaata yoon laa fi génn. nga laaj ma si làmb moo wax la. waaw nga laaj ma si football moo wax la. na la demee. tawféex rek kon nag nañu xam ne man yoruma yëfi gone mhm. yëfi mag laa yor te nag lii man duma ko caaxaane mhm, bismillah li ma mën a wax mooy mhm. Balla gay waaw bërëb bi bërëm la waaw moo jekku si gàllaaj jekku si doole jekku si lépp moom Balla Gaye Balla Gaye xoolal li maanaam li li daan Tapha Tine lu yomb la déet waay sëñ Mourtala barki Seexul Xadiimi Balla Gaye bu ma ko joxee li ma koy jox billaahi wallaahi wataalaahi su ko neexee caxabal ba caxabal tafaatin waaw daan ko daan boo xam ne moom sax mën naa bañ a takk suuf ah! barke seexul xaddim bi te loolu maa ko wax fii te bu ñëwut si man nag dana ko rëccu la la la war a daan tafaatin maa ko yor téye ko ah, yor da ngaa yor saraxam wala gàllaajam nga yore du sarax du dara tarkal la kon su ma la déggee baat yu ma la wax rek mu def ni tëf ko fii la waaw su ma Balla Gaye su ñëwee si man moo wax ko def ko incha allahu rabi bu daan tafaatin si moom la neex te bu ñëwul si man nag du faju tarkalla loolu leer na ah. xam nga dama fi génn saa mhm. bëre bii waaw bala mu kaa bëri na ñëw si man ñuy négliger di négliger anamu hmm. waaw jeex na de anamu ama seen de daan na amat seen ba ma fexe moom hmm. mudloo xam nga faw nit ngi di xàmmee hmm. nitu yàlla fi wax lu ko neex dama ne Balla Gaye waaw li war a daan tafaatin maa yor sama loxo bii tarkalla te su dikkee ma jox ko ko mu daan ko si force jërëjëf ñu bala ñu bala nga tàggatoo kon li may tàggatu mooy ñaanal si Mouhamadul Mountakha te di ko ñaanal sama bopp mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë ngeen jëf